moom mi nga xam ne moom mooy Mouhamed Boun Abdallah Dionne daal dina démissionné lu tax nag mu démissionné du lenn lu dul jàppoon na ki nga xam ne moom mooy euh, njiital réew mi njiitu réew mi plutôt plutôt président Macky Sall da koy tànn euh, mu daal di jiite li nga xam ne moom mooy euh, coalition bu benn bokk yaakaar moom nag mujj ko tànn moom mi nga xam ne moom mooy Mouhamed Boun Abdallah Dionne voilà mi ngi noonu moom nag da daal dina démissionné ci post bi nga xam ne moom lañ ko dénkoon ca BICIS bañ ko ko dénkee léegi sax yàggul benn yoon euh, ginnaaw remaniement bi nga xam ne amoon na ko euh, moom mi nga xam ne nag moom mooy euh, njiital njiital BICIS woon daal dinay démissionné ginnaaw ba ñu tànnee ki nga xam ne nag moom mooy Amadou Ba mu daal di jiite li nga xam ne nag moom mooy coalition bu benn bokk yaakaar moom Mouhamed Boun Abdallah Dionne daal dinay démissionné ci poste bile la tax mu démissionné nag du lenn lu dul dafa bëgg soobu ci wàllu politique bile ngir rek daal di dagaan baatu askan bile ngi rekk a jiite li nga xam ne moom mooy ngir jiite li nga xam ne moom mooy euh, Sénégal li nag euh, sànq la ko daal di euh, béral moom Mouhamed Boun Abdallah Dionne daal di nay dimissionné ci poste bi nga xam ne fa la nekkoon ca BICIS di président du conseil d' administration PCA voilà j'ai présidé aujourd'hui l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la BICIS compte tenu de mon engagement politique j'ai préféré me libérer de mes fonctions de président du conseil d' administration de la banque je les dirigeants du groupe euh, Sunu, détenteur de 54,11% du capital de la banque, que je au du conseil. Je remercie les actionnaires, les administrateurs, la direction générale et le personnel de la banque pour leur confiance durant durant mon mandat, dans les jours à venir, le groupe Sunu désignera un nouveau président du conseil euh, pour la BICIS mbokk yi ñoo ko gisa ndox ki nga xam ne nag nekkoon na premier ministre euh, ci nguuru président Macky Sall moom Mohamed Boun Abdallah Dionne euh, nekkoon itam ci gouvernement bi moom Mohamed Boun Abdallah Dionne mu ngi noonu complicité bi nga xam ne amoon na ko njiitu réew mi président Macky Sall ba ñu dénk ko sax li nga xam ne moom mooy PCA bu yoon moom nag euh, jàppoon na ne sax ki nga xam ne moom mooy njiitu mi président Macky Sall dina ko tànn ci élection euh, ci pour mu jiite li nga xam ne euh, moom mooy coalition bu benn bokk yaakaar moom ak Aly Ngouille njaay gis nañu itam ki nga xam ne moom mooy Mame Boye Diao Abdoulaye Diouf Sarr ak ñeneen ci ñi nga xam ne ay kàngam lañu ay leader bokk ci li nga xam ne moom mooy ci ci ci plateforme boobu di benn bokk yaakaar ginnaaw bu ñu tànnee ki nga xam ne nag moom mooy Amadou Ba coow li xaw a bari lool Euh, Aly Ngouille Ndiaye daal di bàyyi démissionné euh, Mame Boye Diao itam euh, ñu daal di koy radier plutôt keneen ka bàyyi du kenn ku dul Mouhamed Boun Abdallah Dionne moom nag bàyyi na sànq information baa ngi noonu moom la ñu dénkoon li nga xam ne moom mooy BICIS mu nekkoon président conseil d'administration PCA moom nag daal di nay démissionné ngir rek daal di sóobu ci li nga xam ne moom mooy politique bile ngir rek daal di dagan baatu askan bile moom Mouhamed Boun Abdallah Dionne daal dinay bàyyi gis nañu euh, keroog benn image mu ànd ak ki nga xam ne moom mooy Aly Ngouille Ndiaye moom itam gis nañu bàyyi na euh, beneen information bu bàyyandi ko léegi moom mooy la dimission de Mouhamed Boun Abdallah Dionne euh, ci poste bi nga xam ne moom la ñu ko joxoon te BICIS di président conseil d'administration mu ngi noonu dinañu gën a toppandi bile information moom Mouhamed Boun Abdallah Dionne daal dinay bàyyi ci watum 2024 yi ñu jëm yi war a am fii ci euh, diwaanu Sénégal gilee Mouhamed Boun Abdallah Dionne ginnaaw nag ba mu présider li nga xam ne moom mooy assemblée général bilee moom nag mu ngay remercier ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca BICIS ña ca gën a nekk nag moom mooy les actionnaires de la BICIS ak ñi nga xam ne itam ñoom ñoo ca nekk les actionnaires euh, administration bi directeur général euh, personnel lu banque bi yëpp mu ngi leen di gërëm bu baax euh, ci ni ñu nga xam ne jàppe nañu liggéey bi nañ ci àndee woon ginnaaw mandat bi nga xam ne def na ko moom Mouhamed Boun Abdallah Dionne nag mujj naa bàyyi foofee nga xam ne fa la nekkoon ma ngi leen di encourager itam xam naa ne sax ma nga ci wax voilà information bi nga xam ne moom laa ko doon wax sànq moom mooy ki démb euh, moom Mouhamed Boun Abdallah Dionne nekkoon euh, premier ministre woon ca nguuru président Macky Sall ak ki nga xam ne moom mooy Aly Ngouille Ndiaye on se rappelle très bien moom Aly Ngouille Ndiaye sax nekkoon na première mi euh, nekkoon na plutôt ministre de l'intérieur ci euh, euh, nguuru président Macky Sall moom sax jàppoon ne kii di président Macky Sall moom lay tànn mu daal di jiite li nga xam ne moom mooy coalition bile ginnaaw nag ba ñu tànnee ki nga xam ne moom mooy du baa ñoom ñëpp itam ñu daal di fippu lank bañ topp ci ki nga xam ne moom mooy ci ginnaawam. ca noonu ci di Aly guy Ndiaye daal di bàyyi euh, euh, dal di ber yoonam gis nañ ko fa foofee ca diwaanu Tivaouane euh, keneen ka bàyyi léegi du kenn ku dul Mouhamed Boun Abdallah Dionne moom nag dafa daal di démissionné ci poste bi nga xam ne moom lañ ko denkoon ca BICIS mi président conseil d'administration j'ai présidé aujourd'hui l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la BICIS compte tenu de mon engagement politique j'ai préféré ma libérer de mes fonctions de président du conseil d'administration de la banque. Je saisis pour remercier les dirigeants du groupe Sunu, détenteur de 54,11% du capital de la banque que je représentais au sein du conseil. les actionnaires, les administrateurs, la directrice générale et le personnel de la banque pour leur confiance durant mon mandat. Euh, dans les jours à venir, le groupe Sunu désignera un nouveau président du conseil pour la BICIS mbokk yi mi ngi noonu information baa ngi noonu Mouhamed euh, Boun Abdallah Dionne daal di nay démissionné ci li nga xam ne moom mooy post bi nga xam ne dénkoon nañ ko ko. Euh, ca euh, BICIS mu nekkoon li nga xam ne moom mooy président conseil d'administration euh, ci mandaam bile moom mi nga xam ne moom mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne daal di nay démissionné ngi rek soobu ci li nga xam ne moom mooy ci élection présidentielle yu atum 2024 yi nga xam ne moom la ñu jëm ñu ñëwaat ci li nga xam ne moom la ñu doon waxtaanee merci beaucoup Moustapha Thiom euh, ci liggéey bu rafet bile ginnaaw nag kàddu yi nga xam ne euh, Serigne Mansour Sy Djamil yëkkati na ko euh, foofee nga xam ne moom mooy ca kanam président Macky Sall. kàddu yi nga xam ne itam Serigne Maodo Sy Dabakh daal dina ko yëkkati visite bi nga xam ne njiital njiitu réew mi président Macky Sall daal dina ko def dénkaan yi nga xam ne itam. amal na ko yooyu yëpp incha allahu rabbi dinañ ci ñëwaat ci ni mu gën a yaatoo xam ngeen ni tey Sira euh, si itam dina fi euh, ñëw ngir ànd ak euh, Pape musa Pape Ousmane pluto ngir daal di décortiquer li nga xam ne mooy situation politique bi lee bi am ci réew mi ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax a baax information baa ngi noonu muy la démission de euh, Mohamed Boun Abdallah Dionne euh, ci président conseil d'administration bu bisis Euh, information bu moom mujj ci wàllu euh, euh, démission bile ginnaaw nag démission bu Aly Ngouille Ndiaye ñu ngi ñu doon wax sax naan président Macky Sall ba tey Euh, nangoogul signé li nga xam ne moom mooy division bile euh, radiation bu ki nga xam ne euh, radiation bu bu bu usman Sonko sur les listes électorales Ismaïla Madior ba tey ma ngay gën di persister yooyu yëpp incha allahu rabbi ay ponk la yu ñu doon waxtaanee fii ci sans limite TV gërëm leen bu baax a baax a baax a baax ci ànd bi ngeen doon ànd ak ñun. ñu ngi leen di ñaanal bu baax itam euh, mawlutu euh, mawlutu bu barkel xam ngeen ne équipe bu sans limite itam ñu nga foofee nga xam ne moom mooy ca diwaanu Tivaouane ñu ngi gërëm bu baax itam tey ñaanal ki nga xam ne moom mooy Aziz Ndiaye gis nañu liggéey bu rafet bi nga xam ne mi ngi koy def foofee ca diwaanu Tivaouane moom Abdoul Aziz Alla Ndiaye yëg ngeen sax moom itam takk na ñaareel ñu ngi koy ñaanal sëy bu barkel njaboot gu barkel takk na nag ki nga xam ne moom mooy ay Aïssa Rasoul ñing euh, nekk saaliyaat ñu ngi koy gërëm